ba feebar bi commencé ba léegi Thiès am nañu téeméer ak juróom ñett ñeent fukk ak ñeent cas yoo xam ne dañ leen doon amoon nañ ko fii Thiès ba feebar bi commencé juróom benn yi nekk ay cas importé euh, fukk ñaar fukk ak juróom yi nekk ay cas communautaire téeméer ak juróom benn fukk cent soixante nekk ay cas contact leen di ministre de la Santé dong, Diouf Sarr donc mettre en place ñaari site de euh, prise en charge fo xamné ñi nga xamné dañoo fièvre té dañu dara amuñ benn màndarga fièvre bi dara dalu leen ñu ñu ubbi ko ak base militaire u Thiès donc hôpital Thiès nak ñu fay yobu ñi nga xamné ne ñoom ay màndarga mais depuis niñ biñ défé lool ba légui daf ñoo yombal liggéey bi parce que problème biñ amone moy bu nekké nit dafa nekkon cas contact ba paré ñu ñu prélever ko mu mu positif moom xelam mënutoo nangu da nga koy dégg ci rajo yi sax ñu bëri ñu naan feebar ba awma dara parce que en réalité ay cas contact yu mel ni man ak yéen buñ la bëggee gàddu yóbbu hôpital day métti doo ko gëm et puis lay xaabee pourquoi ma yóbbu hôpital te man awma dara da ngeen di dégg kër fa ñu naan mais man awma dara effectivement amuñu dara mais c'était pour protéger population ñu leen fay dugal geraw ak base militaire bi ñu fale leen yobbu nga xam ne am na tout le confort ay chambre individuelle la expliqué ne dañ leen di toogloo fii une semaine deux semaine bu ñu amee ñaari prélèvement yu négatif ñu bàyyi leen après dañ ci liñ koy gën a nangu ndax ba mu amee ba léegi vraiment ñoom gën nañ nangu loolu euh, alors que bu njëkk ko ci cas contact bu ñu amoon bugg ko gàddu yóbbu hôpital problème yu métti la doon doon. Thiès actuellement foyer yi am mooy Thiès am na ay foyer ñu ngi koy suivre euh, euh, zone Tivaouane bi am na ci département Tivaouane am na aussi ay dëkk yoo xam ne poids la amoon nañ foofu. ak kër Chérif lu et puis Mbour aussi commencé na temps il y deux jours donc euh, am na premier cas yi am nañ aussi premier cas euh, xombol aussi dama ko fàttewoon mbu xombol am na ka ak Joal ak euh, waaw mu ngook ka xombol bi Toubatoul lu jóge donc pour le moment région district yi am nañ Thiès que léegi bàyyi nañ di yóbbu contact yi ci opi ci hôtel yi dañuy yóbbu aussi contact yi léegi ñu toog seen kër ñu leen di suivre nekk nañ ci ñeenti téeméer ak juróom-ñetti fukk ak ak ak juróom-ñaar donc muy 487 si je ne me trompe ci ci ay contacts yu ñuy suivre fois aussi ñu jël leen foofu dañ fay am ay jafe-jafe parce que quoi ñu bu leen ñoomit xam nga confiner nit ci hôtel mooy gën a yomb parce que dafay nekk sa wet parce que nit bu nekkee këram nag fois confiner ko day jafe. bàjjenu gox yi muy chef de village yi guide religieux la ñuy expliquer comme ça ñooñu danañ wax ak ñoom pour ñu des seen kër. bu ñu leen waxee ak ñoom danañ des ci kër gi.